bonjour amis fidèles internautes Sénégal seet ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di amaat un réel plaisir di ñëw ci seen émission bi nga xamante ni hebdomadaire lay am tous les jours à partir de 12h muy face actualité ñu am mbégte ak contentement dalal fi koo xamante ni euh, suñu confrère la mais aussi suñu suñu nit mu nekk koo xamante ni duñ ko présenter les Sénégalais et le monde entier muy wuyoo ci turu Bachir Fofana euh, sauf que dañuy gëj a gisante mais suñu amee émission émission bi dafay neex parce que daf may tooñ mais garaawul. ñun ñoo far on est ensemble donc Bachir maa ngi lay nuyu di la jox sa waaye di amaat un réel plaisir di la dalal. waaw soxna Lalla avec un réel plaisir laa la wuyu si comme chaque fois que euh, da ngeen ñuy invité di nuyu waa kër gi yëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sénégal itam fu waay mënti nekk et puis euh, ñaan également lépp loo xam ne lii ñu ngi koy waxtaanee yàlla ñu ngi wax loo xam ne dañ koy rëccu. te yàlla nañ ci wax lu amal njëriñ askan wi. amiin ba mm-hmm. Bachir balaa ñuy commencé dañuy masaw population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Bakel gis nañu mbir mi nu mu fa demee euh, fleuve bi débordé ba mu jox fa ay inondations espérons que ni peut-être autorité yi dina jël les devants euh, pour dem assister leen. mais ñu masaw leen bu baax a baax sur la situation d'ailleurs gis nañu sax APR def benn communiqué pour rappeler gouvernement bi que dañu war a jël ay mesures daar daar waaw dañ leen di masaw xam nga nag euh, la xew euh, la xew sur le fleuve Sénégal euh, dafa xaw a doy waar ndaxte y un barrage. Mm-hmm. defe naa bu ma juumul c'est le barrage de Manantali. Manantali. Mmh. lequel barrage a pour objectif justement de retenir l'eau de contenir l'eau mais apparemment barrage bi. dafa mm-hmm. waroon déborder. et on a fait ce qu'on appelle des lâchers d'eau Mm-hmm. mooy maanaam on a ouvert les vannes et ça a inondé des endroits. Mm-hmm. donc benn booy njëkk a posé wu mooy comment se fait-il euh, lu mel noonu parce que normalement xam nañ début ndox bu war a jaar foofu noonu et qu'on n'est pas invité les populations à prendre les dispositions nécessaires. Mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi. gis nañ ministre de l'intérieur dem fa ànd ak ministre de la femme et des solidarités ministre tey ndaxte moo fi taxaw fii ñuy tuumal nit ñi dañ koy laal ndax lekk na cinq milliards mu ne bu ko lekkee moo tey donc man je l'appelle ministre maa tey donc moom ministre tey dem na foofu noonu ànd ak euh, ministre de l'intérieur pour euh, justement dem xool situation bi en espérant que lu mu laaj ci ay euh, mesures dina am parce que bu leen fàtte ni ay ndox yu taya y di des mesures d'ordre sanitaire à prendre parce que ndox yu taa mën na jur prolifération de certaines maladies et cetera donc ñii nga xam ne aussi elles ont été sinistrées ñu mën leen identifier taxawu leen ndox yi dem te en espérant tamit que taw bi du am njeexital ci lu ñu ji. parce que si les champs sont inondés ndox mi waaw ndox mi ndox mi waaw pardon ndox mi du am njeexital si loo xam ne li saa a été semé bu fekkente ne tool yi dañoo inondé par exemple toolu ah, gerte yi wala ñu doon préparer récolte exactement wala toolu maïs yi wala leneen yooyu et ndox mi yàgg fa ça peut faire pourrir lu ñu fa bay loolu noonu te bu boobaa malheureusement di nga leen dimbalee mm-hmm. parce que dañoo nekk ci ay xat-xat nii mm-hmm. te bu nawet jeexee di nga leen yóbbul secours parce que il risque d'être dans une situation d'insécurité alimentaire mm-hmm. kon lu mu ci mënti doon daal ñu ngi xaar de mesure gis nañ ministre de l' intérieur dem fa gis nañ ministre de ministre maa tey dem fa maintenant en attendant de voir lan lay doon mais appel à solidarité tamit nag war na am war nañ mën a lancer benn appel à solidarité pour justement taxawu leen loolu nag sénégalais yi xaw ma ne ku koy organiser mais war nañ mën a am Bachir lu tax ma bëgg ñu taxaw foofu mooy barrage boobu dafa yàgg oui ça fait presque mun nañu wax 60 ans wala. yàgg na wala 50 ans sax yàgg na trop donc depuis lors amul ay changement parce que bul fàtte ni matières yi te ay affaires yi dañuy am dure de vie. bien sûr donc bien sûr. Sénégal aussi am nañ problème mu suivi. problème mais bien loolu aussi est ce bokkul ci conséquences yi jur lii. waaw mais xam nga déjà. quand tu entends les gens te parler de la dette du Sénégal. Mm-hmm. de la dette du Sénégal en 2024 on te dit que le Sénégal a quinze mille ou seize mille milliards de dettes. Jama ak Malantali la ñu lebee woon pour tabax ko bokk na ci dette boobu ba tey parce que ñu ngi continuer di fay ouvrage yooyu ba léegi. donc c'est dire que quelque part des fois les gens dañuy wax on de seize mille milliards de mu mel nii. si nguur gi jàll en dix ans lañ ko def ci benn espace de temps la voilà alors que aujourd'hui Abdou am na ay bor yoo xam ne da ko fi mhm. bàyyi woon Sénégal mu ngi koy fay ba tey mhm. man am na foo xam ne on avait des projets d'inondation mais bor yooyu noonu dañ koy fay ba eh. donc fii ba deux mille cinquante neuf ñaata président moo fi jaar kon bu boobaa ñooñu bu ñu ñëwee on va dire date bi nangam la nga mais day fekk ne ni am na loo xam ne dix ans ou vingt ans en arrière mhm. lañ ko ki woon donc tey jii nii xëy na jamono jooju noonu ba ñuy dimensionné barrage bi parce que les ouvrages sont dimensionnés. Mm-hmm. ba ñuy dimensionné barrage bi dañ ko dimensionné woon en fonction de niveau taw yi nu meloon. Mm-hmm. mais dangay dégg mag ñi naan la taw yu njëkk yi ñoo dellu si waat. da dégg mag ñi naan la léegi la mu daan taw ren lu muy taw nii géjoon nañ ko dégg wala géjoon nañ ko gis kon nag ça appelle à ce que effectivement bu laajee ñu xoolaat barrage bi ñu yaatal ko yokk ko ñu def ko maintenant loolu nag comme on apprend de nos erreurs et on apprend de nos de accidents parce que jàpp naa ni lii c'est un accident. boo xam ne bii nii ça nous est arrivé et que xëy na déwén dinañ fexe ba bu mu ñu dalaat te ñu dëkk ci autour des des zones. Euh, autour du fleuve Sénégal ils vivront bien et du am problème. effectivement parce que mmh. tey am na ci loo xamante ni peut-être dinañ ci dugg. muy mmh. euh, cadre référentiel bi mais am na ci loo xam ne peut-être concerné na domaine boobu ñu war a mun a exploiter loolu. Mmh. à des fins yoo xamante ni Sénégalais dina leen dina benn utilité ci ñoom. parce que on nous parle d'une autoroute hydraulique ainsi de suite. Oui. peut-être c'est l'occasion à que tey euh, excès d'eau boobu ñu mun ko récupérer. non xam nga ñun xam nga ñun dañoo war a xam ni at bu jot on perd à peu près cent milliards de mètres cubes d'eau mhm. dans l'évaporation benn aussi day baax ñu dellu histoire gis nga fleuve Sénégal boobu. Mhm. Sénégal ko moomoon. dëgg la ñii dëkk waalo xam nañ li may wax am na ñu dëkk waalo ñoo xam ne seen tool yi c'est dans la partie mauritanienne. effectivement xam nga lu tax. Mhm. parce que Senghor. moo ne ñu jël fleuve Sénégal bi def ko frontière entre nos pays. Mm-hmm. mais ñun Sénégal on avait des terres jusqu'à cinquante kilomètres sur la zone mauritanienne. Mm-hmm. xam nga tey jii da ngay dem Rosso Mauritanie ñëw foofu noonu policier naar yi di la fonto lu tax parce que Senghor moo leen ko jox. Mm-hmm. donc maintenant aujourd'hui bañ ñu ko joxee quand on a parlé des vallées fossiles jamonoy Abdou Diouf. les Mauritaniens avaient dit que bu ñu ko defee ñoom du ñu mën a am et parce que c' des ressources partagées le fleuve Sénégal. Mhm. mais aujourd'hui on se rend compte que oui c' bien possible qu'on puisse faire des aménagements pour drainer l'eau mhm. indi ko dans des endroits yoo xam ne day am njeexital suñu agriculture ak suñu élevage. Mhm. sans pour autant que mu am incidence si leneen autoroute de yooyu ñu ngi koy wax yàgg nañ ko wax te mhm. yàlla na ko yàlla sottil parce que tey jii nii à part l'autoroute de on parle du canal du Cayor effectivement pour alimenter l'eau euh, Touba en eau potable mhm. xam nga yooyu noonu yëpp c'est parce que yàgg nañ ko wax mais encore une fois lép loo fi gis ça avait été dit et redit il ne manque que la volonté politique mhm. pour le faire il ne manque que l'engagement pour le faire et on espère qu'on l'aura d'accord alors Bachir lu sànq annoncé naa ko muy référentiel mhm. euh, gis ñun ñëpp suivre nañ présentation bi secteur par secteur mhm. euh, de façon euh, résumé rek sa sa sa gis-gis d'abord am na ci peut-être question spécifique yoo xamante ne sûrement ko ci comme suggestion. non xam nga déjà man damay def ñaar. Mhm. damay def une analyse sur la forme. Mhm. Euh, benn ña ñu ne woon am nañ projet ñu ngi soog a am projet maanaam euh, oh, il y a eu une longue gestation pendant dix ans on nous a dit projet projet projet ñuy dem élection ñu ne ñu c'est écrit par. 4000 xaw ma 1500 cadres xaw ma je sais pas. ñu ñëw ba toog ñu ne noonu non léegi projet bi dañ koy bind dina pare fii ak septembre septembre octobre c'est la même chose l'essentiel indi nañ projet bi. te ñu woon am nañ projet ils ont été obligés d'aller payer quelqu'un pour mu indil leen projet. ah bon ah on a payé à Victor. Victor ah. n'a pas fait gratuitement. boo gëmee ni Victor a fait gratuitement c'est que da nga xamul lan mooy business donc on a payé quelqu'un donc loolu mooy looy njëkk a constaté nga constaté ni également ku gis présentation DSRP 1 nga xam ne fekkee nañ ko DSRP 2 DSRP mooy document de stratégie de réduction de la pauvreté donc DSRP 2 DSRP 1 nga gis SNDS euh, euh, stratégie nationale de développement économique et social DPES document de politique économique et sociale ba ci PSE tu verras toujours que la vision à toujours été présentée par les autorités mais voilà que aujourd'hui c'est Victor qui présente la vision donc daa mel ni la dafa am vision mais mënu ko décliner il faut ñu décliner ko ko donc loolu mooy benn maintenant on est toujours dans les considérations de forme après nag nga gis ni d'habitude c'est le ministère de l'économie qui le faisait avec ses techniciens et voilà que c'est parti maintenant dans les considération de fond boo ci duggee il y beaucoup de choses mais looy constater moo d ni da nga naan pas dit la vérité parce que bu fekkente ne dañoo ne les chiffres qu'on a présentés les chiffres du Sénégal ne sont pas bons et le document repose essentiellement sur ces chiffres là donc soit Sonko waxuñu woon dëgg ba mu ñu naan chiffres yi baaxul wala boog luñ ñu présenté baaxul ñaar yooyu benn nga ci jàpp ndaxte mënoo ne chiffres yu baaxul gars yi ñëw sukkandiku ci chiffres yu baaxul yooyu noonu pour produire un document kon ça interroge loolu mooy lu ngay njëkk a gis après nga ñëw ak maintenant si le contenu tu vas te dire tu regardes le document et tu à la même conclusion moo di ni on est en de faire du PSE sans le PSE on est en de faire du Macky sans Macky et que fii ak 2029 boo deful ndànk lu ñu la fi présenté mooy ngénte doom boo jurul parce que tey jii nii la présentation du PSE avait été faite avec 27 projets phares et 17 réformes majeures à faire document bi est-ce que foo ana projet phare yi gisuma ko j'ai pas vu de xaw ma nag lu ma lu ma lee daal gisuma si voici la liste des projet phares yoo xam ne yii mooy projet yoo xam ne Sénégal 2050 porté na ko muy benn deuxièmement nga ñëw nga gis ñu ne la dans le document le Sénégal prévoit dale à un déficit budgétaire parce que ñu taxaw si terme boobu noonu lan mooy déficit budgétaire lal la day liggéey di fayee ko weer wu dee am na salaire lal la day dépenser mais on se rend que lan la lu muy dépenser c'est supérieur au revenu qu'elle a donc la différence mooy le déficit budgétaire maanaam les besoins du Sénégal sont supérieurs au recettes du Sénégal différence boobu mooy déficit budgétaire on nous a dit que le déficit est supérieur à ce qui est annoncé si tu un budget de 6 000 milliards de francs CFA et qu'on te dise que le déficit est de 5 pour cent à peu près tu as entre 700 et 800 milliards de déficit mais ce déficit là peut être justifié par rapport ak li jot a xew yëpp. non non non c'est-à-dire que tous les pays ont des déficits. waaw non c'est juste que pour rek pour. pour ñu waaw mais c'est ça que je te dis voilà maintenant je dis si on nous dit que le déficit est supérieur à mhm. donc ça veut dire que le déficit n'est pas de milliards mais peut-être de milliards. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mhm. Maintenant, on nous dit dans le document qu'on va de 10 pour cent d'après les chiffres annoncés par Sonko à trois pour cent pour réduire la déficit mais si tu dois réduire le déficit da nga koy natt ci sa bopp sa kër bu dee say bëgg-bëgg moo ëpp sa am-am ñu ne léegi looy def da ngay wàññi say bëgg-bëgg te boo wàññee say bëgg-bëgg wàññi say dépense bu boobaa Lalla fu mu doon dem def traitement de cheveux trois fois dans la semaine mu ne naa ko def benn yoon wala naa ko def ñaari yoon. ya Lalla fu mu doon dem shopping deux fois dans le mois mu ne naa ko def benn yoon Lalla fu mu doon joxe dépense junni mu ne léegi dama koy wàññi def ko dépense 4000 mais quand tu fais ça tu as diminué tes mais ça veut que tu as la ceinture. Mm-hmm. pour pouvoir réduire ton déficit. mais il d'investissement. s'il n'y a pas d'investissement il n'y a pas de consommation s'il n'y a pas de consommation il croissance donc loolu noonu nga xam ne loolu yëpp dafa am nga ne léegi yow tu voudrais réduire le déficit à trois pour cent donc je dis ou bien encore une fois le document est mal formulé ou bien ce que Sonko nous avait dit c'est pas vrai d'accord Bachir voilà. en euh, lu tax ma bëgg ma may may rebondir foofu. Mhm. xam nga tey euh, suñu dee projet. oui ñun ñëpp xam nañu projet bi on nous parle du projet depuis 2014 2016 ou 2020 2019. oui mais tey euh, chaque chose chaque projet. Mhm. su évolution amee dafay laaj ñu mais mise à jour ko. dafay laaj ñu ñu réforme ko dafay laaj ajustement. exactement donc man su ma la déggee tey. projet bi mun na exister depuis très longtemps mais présidentielle la preuve ci coalition Diomaye lañ demee te coalition Diomaye moom moo war a ñëw présenter projet bi mhm. donc cela veut dire que tey même bu fekkente ni projet bële la sûrement il y aura des modifications. tu sais je pour pour contextualiser. xam nga en fait moo suñu waxee ni projet bi doon wax bu ñu doon wax. non mais c'est-à-dire projet musul am. ok d'accord projet musul am parce que lu tax Pastef juddu na. toog nañ ba 2018 Ousmane Sonko génnee livre solution après ñu dem ba ci biir ñu ne il faut défendre le projet danga daan dégg ñu naan défendre le projet waaw défendre le projet et je me rappelle bien mës naa dégg commissaire Keïta mm-hmm. mu toog tele mu ne Pastef n'a pas de projet et Ousmane Sonko ne saurait constituer un projet ñu dem ba ci biir ñu ñëw coalition Diomaye indi document tuddee ko le projet la preuve lan la dugal ci document boobu noonu nga comparer ko ak lu ñu bind tey jii nii tu te rendras compte que c'est deux choses différentes le document boobu on parler de monnaie de sortir du CFA est-ce que dans le Sénégal 2050 gis nga fu ñu wax waxu sortir du CFA gisoo ko ci man boog gisuma ko donc et ça c'était un des engagements majeurs de ce qu'ils avaient écrit dans leur projet la mais man kenn rek laa xam ni lu mu wax moom laa nangu mooy le ministre Daouda Ngom seetaan naa ko dimanche dernier j'étais invité à Remi Ménage RFM ma pare moom muy ñëw di def grand jury mais bañ ko waxee dafa ne mais écoutez le programme Diomaye président c'était des c'était des intentions voilà c'était du c'était des intentions c'était euh, nan la ko tuddee woon sax benn genre mot genre. volonté euh, euh, un chapelet d'intention donc voilà donc projet. amul woon am na c'est bien maintenant après amul woon. am na c'est bien maintenant léegi. d'accord Bachir. voilà léegi c'est oui mhm. vas-y vas-y. Euh, xam nga tey actuellement Sénégal. dafa mhm. nekk ci benn euh, tournant bu décisif. oui ñun ñëpp d'accord nañ ne même su fekkente ni toog nañ fi depuis 1960 ba tey. Mhm. nit ñi dañu excité wu am euh, développement bi ñuy xaar tey li fi jot a xew yëpp. jàpp nañ ne avec. li ñu présenté Sénégalais yi yi dafa rëy. oui et que tey ak lu munti xew war nañu mettre euh, en exergue li nga xamante ni moom lañ teg ci loxo askan wi. je suis et que tey yéen am ngeen ci rôle boo ñu leen. ci joué falaa doon jëm. voilà allez doon jëm. Ngone xaw ma ma naan la Ngone pardon euh, Lalla. Graaw place wey la. <laughs> Lalla xëy na yow da nga di xale fekkee woo ko mais ñun dañoo nekk xale. Senghor ba muy def. Eh, pla fekkee naa Macky Sall. waaw mais Senghor laa wax <laughs> <laughs> ak Ablaye Wade ak moom Ablaye Wade waaw Senghor ñun nekk xale. dégg suñuy papa yi di naan Senghor teg na plan de développement boo xam ne. Mhm. l'an 2000 Dakar sera comme dégg nga xale yi di ko wéy. Mhm. ñu naan l'an 2000 Dakar sera comme Paris. Mhm. donc ñun tamit Sénégal 2025 tegal nañ ñu programme boo xam ne 2050 Sénégal sera émergent. c'est normal c'est la vision c'est faire rêver. Mm. donc faut diir dire que leneen amul woon. gis nga ñun ñii ñëpp nous sommes issus de ce que nos aînés ont ndaxte tey jii son ko école ga mu jàngee. Mm-hmm. Senghor a ko tabax wala Abdou Diouf. Mm-hmm. université ba mu jàngee Senghor a ko fi bàyyi. et ainsi de suite keneen ak keneen noonu donc personne ne dira que ñi fi jiitu defuñu dara. Mm-hmm. maintenant nag am nga sañ-sañ nga ne ñi fi jiitu la ñu def doyuma. nit am na sañ-sañ boobu. Mhm. am na sañ-sañ nga ne ñii lu ñu def doyul. mais nag lu ñuy wax kër du pare. tey jii ñu ngi nii Sénégal set fii ñu toog yaa cinq ans melul woon nii. Mhm. nañ ko nangu. Mhm. parce que dëkk walla kër day dox te saa yu dox mu am soppite yu bees yooyu dugal. effectivement maintenant lu ci bon mooy lu Victor def bëgg a toog ne. kër gi boo ñëwee balaa nga kaa peinture da ngay xool ndax fondation yi baax na bu baaxul nga màbbal ko et deux ans avant moo toogoon jàkkaarloog Macky ne ko la partie la plus ingrate du travail def nga ko et que nous sommes au portes de l'émergence. mais mais, mais Bachir amoo problème ak. la la avec Victor. non même maa ngi gis tout le temps yaa ngi accès wu ci moom. non non mais tey euh, euh Victor c'est pas parce que présenté na projet. non PSE e que mu présenté projet euh, Pastef bi rek. mais mais, mais là là pourquoi je dis je parle de Victor j'ai un problème donc je parle de Sonko j'ai un problème non arrêtez ça. non je demande pas. non, je mets en exergue les propos. comme aussi je peux te en exergue les propos de Souleymane Diallo directeur général de la planification et des études économiques. mais Souleymane Diallo c'était mon collègue à moi. Mhm. ba mu nekk ministère de l'agriculture il était conseiller j'étais conseiller. après il est passé directeur de cabinet on a travaillé au ministère du plan. Mhm. mu dem ministère environnement. mais tey ku Souleymane Diallo bu toogee di foofu ngay foofu ngay waxee ko maanaam on veut nous faire comprendre que de 1960 à 2024 dara baaxu fi et ça moi je ne peux pas parce que bu dara baaxul woon man du ma fi toog ndaxte man chaque jour ma ne nous nous avons été la génération qui a fait double flux à l'école kan moo indi double flux à l'école Iba Der Thiam ba mu nekk ministre de l'éducation sous Abdou Diouf lu taxoon ñu indi double flux il y avait pas beaucoup d'enseignants il y avait pas beaucoup de salles de classe et il y avait beaucoup d'enfants à scolariser ñu ne ñii bu ñu jàngee suba ñii nañ jàngi ngoon mais même si jamono boobu dañ doon naan enseignement au rabais la baaxul mais bu dul woo bu fi bu fi loolu amul woon mu gën a ñaaw donc dire que dara amul parce que on a parlé comme si rien n'existait. moo foofu laay waxee quoi. d'accord donc j'ai pas de problème ak ñëpp. voilà mais vouloir nga taxaw jàkkaarlook Macky Sall ne ko nous sommes a mi-chemin de l'émergence. et que aujourd'hui les fondations sont solides lu ñu waroon def yëpp def nañ ko. deux ans après nga mën a taxaw nga ne kër gi fondations yi baaxul kon dañ ko war a màbbal mais les gens s'interrogent on va s'interroger yow. la nga doon wax démb dëgg la wala la ngay wax tey est-ce que dëgg la donc c'est un peu ça le niveau donc ñu taxawoon woon démb ne li donc voilà les problèmes que les gens peuvent avoir par rapport à certains sa sa sa inter sa sa euh, nu mu su euh, je perds le mot hmm. sa contribution boobu ñun suñu kon ñun contribution moo di ni présent kii bi maanaam pôle yi ñu ko pôle yi ñu non non c'est-à-dire que stratégiquement yi pôle yi ñu définir secteur par secteur est-ce que am nga ci ay contribution xam nga tey jii nii voilà Madické Fofana mun na ko euh, joxe pour le pour le bien xam nga xam nga tey jii nii euh, euh, c'est la où c'est le moment pour mois de saluer ku mel ni Eliman Kane okay. de l'ex-Africa parce que dañoo duggoon dans one dans la dynamique de ce qu'on appelle la co-construction okay. am na ñu ko doon wax naan tout ce que tu fais pour moi et sans mois et contre moi mhm. maanaam boo demee bay def mbir fexeel ba ñi ko séq ñu am ci xalaat ndaxte man je donne toujours l'exemple du PSE parce que dama bokkoon si ñu si liggéey. Mhm. quand le document a été produit document bi dañ ko jël partagé ko ak ay nit ku nekk joxe xalaatam. Mhm. donc foofu noonu. dafa loolu dafa manqué dans ce document là. parce que le PSE je me rappelle il y a eu des rencontres avec le secteur privé. Mhm. jamono yi moi j'étais conseiller en communication du ministre du plan. Mhm. il y a avec le secteur privé. il y a avec les bailleurs de fonds il y a avec sectoriels yu bëri yoo xam ne ku si nekk dañuy ñëw indil la document bi présenté ko nga joxe sa xalaat ñu amender document bi dugal ko. donc côté boobu noonu Fofana ngay xam Bachir Fofana Lalla Wele keneen ak keneen lan mooy doon seen. Euh, contribution seen contribution. Okay. parce que on doit faire en sorte que le document mu am appropriation nationale. Mhm. parce que appropriation nationale mooy tax sénégalais bu ne gis ci boppam. Mhm. sénégalais bu ne jàpp ni document bi sama yëf la. sénégalais bu nekk jàpp ni budul man mënul dox mhm. te mu fexe lu mu koy doxale donc loolu noonu ñu ngi leen siy ñaax en espérant que effectivement loolu dina am parce que il y a la stratégie vision 2050 il y a le plan opérationnel 2027 2029 et il y a le master plan en espérant que yooyu yëpp bu ñu ko naree def sénégalais dinañ joxe seen xalaat ñu def ko et ça loolu rek mooy lu ñu mën a avancer loolu jëm ci kanam contribution mm. comme euh, ni nga ko waxee Bachirou balaa may tëj point boobu très rapidement ñun ñëpp xam nañ ne ñu ngi traversé benn crise économique boo xam ne peut-être euh, ñu ngi jéem a rassurer investisseurs yi et autres mais tey euh, yan lan nga jàpp ni tey moom la Sénégal war a taxawee benn pour mu bañ pour investisseurs yi gën a mën a ñëw investir mais aussi gérer crise économique bi ba génn ci. lan xam nga chaque jour ma ne la l' économie est la confiance. gis nga yéen vous êtes en travaux fii. Mhm. da ngeen di am chef de chantier. Mhm. bu ngeen jël mu ñëw defal leen plan de vie. ak yooyu dingeen jënd ciment di ngeen jënd suuf di ngeen jënd bant di ngeen jënd peinture te boo jëndee ciment dinañ ko transporter waa ji ñoom jox chantier bi dina indi ay manœuvre ñu ñëw liggéeyal te boo deful ndànk bu dee chantier bu rëy la nga gis benn euh, penda barji bu dem jël benn boolam teg ko ci bunt bi fii di jaay ndékki wala di jaay añ te noonu la koy defee voilà <laughs> donc économie pour mu dox il faut d'abord la confiance mm-hmm. il faut que sunu autorités yi ñu rassurer les investisseurs mm-hmm. bëri na ay sénégalais tey jii yoo xam ne seen ay business ñu ngi koy defee ci yeneen i réew parce que amuñu assurance ni lu ñu bëgg ñu ngi am beneen ci assurance yi je ne dis pas qu'il ne faut pas des impôts mm-hmm. mais quand même il ne peut faire une trop forte pression fiscale day dawloo ñu bëri beneen bi tamit l'environnement juridique je ne dis pas il faut encourager l'impunité mais bu fekkente ne nit ki bu ñëwee fii nii après il n'a aucune protection juridique ça peut le faire fuir donc c'est un tout c'est un ensemble boo xam ne bii nii dañ ko war a teg de sorte à ce que l'économie démarre. Mm-hmm. mais nañ ko wax laal la actuellement toute est bloqué. Mm-hmm. parce que les chiffres sortis par les services du ministère de l'économie nous montrent que san marche pas mm-hmm. l'activité au port elle a mm-hmm. ay chiffres ñoo ko génne donte le le DG du port passe tout son temps à tweeter et à les gens muy benn beneen bi l'activité de commerce et tout gis nañ ni y a beaucoup de choses yu daan am amul mais loolu yëpp ça un effet parce que par exemple sur l'activité du du commerce tourisme bi tourisme de conférence da daan am Dakar abrite atelier nangam Dakar abrite le sommet nangam et tout ce la bu doon ñëw da doon dundal hôtel yi. Mhm. da doon tax hôtel yi mun a am clientèle leneen ak leneen. mais que du contexte bi ñu jógee aussi bokkul ci conséquences yi. oui mais bon mun nañu wax ni depuis deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre presque euh, ba deux mille vingt quatre am na benn crise bu fi amoon. oui mais bon oui mais justement ci conséquences yi nga xam ne. mais bien mais bien bien bien justement bien justement cette con ce contexte que nous avons vécu peut-être qu'a influé sur euh, les investissements ça c'est vrai. Mm -hmm. maintenant jóge nga ci contexte boobu noonu am nga de nouvelles autorités yoo xam ne xam nañ seen ay orientation en matière économique. Mhm. loolu également ça Ça peut aller. a peut, ça peut aider à, à, à, à, ne pas rassurer les investisseurs. Mais l'homme tu le business, c'est le business. Mm -hmm. Moi, je me rappelle toujours, même si le Mansour Kama, quand j'étais dans la presse, mm -hmm. xam nga Sénégal dafa yàgg am relation économique ak la Chine. Mhm. ñu toog ba benn jamono le Sénégal dafa am ay pays yoo xam ne yi ñun Sénégal rek ñoo am chance boobu noonu. généralement les pays qui reconnaissent Israël ne reconnaissent pas la Palestine. ok mais ñun nous avons la particularité de de reconnaître la Palestine comme de reconnaître Israël. Mhm. léegi nag la Chine aussi noonu la mel. la Chine dala naan si tu me reconnais. tu ne mhm. peux pas reconnaître Taïwan. ok le Sénégal à un moment donné avait reconnu Taïwan. Mhm. la Chine avait coupé ses relations Mais quand le Sénégal avait coupé ses relations diplomatiques avec la Chine, mmh. je me souviens un jour mu am une rencontre d'investisseurs du secteur privé taïwanais à la chambre de commerce Mansour Kama di ko jiite. Je lui pose la question ma ne ko mais commence se fait-il qu'on nous le Sénégal n'a pas de relations diplomatiques avec Taïwan et vous vous recevez des investisseurs taïwanais. OK. mu ne ma mais écoutez le business reste le business. le business n'a pas de frontière le le business n'a pas de coloration politique donc loolu laa gëm le business n'a pas coloration politique le business n'a pas de frontière si tu dois faire du business avec un Malien fais-le si tu dois faire du business avec un Sud-Africain fais-le mhm. mais si tu faire un business avec un Français ou un Hollandais fais-le aussi maintenant l'essentiel moo di ni yow ne sois pas lésé Mhm. l' essentiel moo di ni yow sa askan na ci gis boppam. l' moo di ni yow le que tu ne sois pas le grand perdant dans ce business la donc si côté boobu noonu. les discours et tout c'est bien mais la réalité c'est l'économie et la réalité pour l'instant elle ne bouge pas il ne bouge pas d' accord alors Bachir dañuy dem ci euh, élection yi nga xamante ni moom mooy les législatives 2024. oui investir nañu wala investir non man je suis pas investi cette année. d' accord j'ai j'ai décidé. parti kon demul élection. non man aw ma parti. lan nga am kon man j'ai un mouvement à à à Vélingara. Bachir nga fi élection. waaw mais loolu laa lay expliqué waaw attends je t' explique j'ai un mouvement à Vélingara. élection locale dafa jot uh-huh. ma bëgg dem élection. mu am parti politique boo xam ne daf ma proposer soo récépissé. ok et encore une fois. on nous l'a pas proposé gratuitement nous nous avons payé la caution. caution okay. nous les candidats ñoo génne suñu xaalis cotisé ba muy 15 millions ñu teg ko muy muy caution et je me rappelle chaque candidat devait donner 300 000 francs de contribution à la caution. ok il fallait le verser dans le compte. nga joxe kii bi pour ñu mën la jox récépissé parti bi nga demee ko élection. Mhm. donc c' était union citoyenne buntu bi noonu la ñu demee woon élection. ñu gagné ñu gagné ñu dóor ñu dóor yu métti <laughs> voilà ba loolu noonu ñu jógee ko foofu noonu ñu ñu àndaloon dem élection locale ñu approché leen par la coalition Aar Sénégal ñu dem ànd ak ñoom élection. d' accord léegi man ma nekkoon seen candidat à à dem nañ. gagné nañ ma mais gagné yi méttiwul. <laughs> parce que déedéet local la wax. ok d'accord les local métti woon na. législative méttiwul parce que entre les élections locales et les élections législatives. Uh-huh. j'ai multiplié par six le score que j'avais. ok donc mu xaw a tane tuuti. non mu xaw a tane tuuti. donc voilà maintenant élection yi ñëw na. moi j'ai décidé de ne pas y participer. parce que dama jàppoon ni c'est pas mes élections. d'accord man ce qui m'intéressait c'est les Alors, élections local à venir. sa lecture par rapport ak euh, déjà 41 waaw lañu war a def mu war ñu coûter 41 milliards. Ah, loolu benn problème dina bëri de. léegi suñu jógee ci loolu d'abord ci ci liste yi d'abord. Bachir euh, bëri na de. waaw liste yi bëri nañ parce que euh, élection yee jàll législative. y le filtre du parrainage. mais ci bii nii décision bii conseil constitutionnel génne woon te président Diomaye nëbbuñu ko deux mois décision boobu noonu dafa ne le parenage ne sera pas effectif dans ces élections. Mmh. donc bu parrainage amul. lenn rek lañu laaj parti politique yi moo di ni na nga am récépissé de parti ou mhm. coalition de parti. ok donc voilà comment. on s'est retrouvé avec 49 listes yoo xam ne déposé nañ seen dossier. Mhm. pour euh, l'élection on en a validé 41. donc 41 listes nag dafa bëri. dafa bëri bëri na trop mais la may wax toujours rek la démocratie n'a pas de prix et la un coût et il faut supporter ce coût. d'accord voilà malheureusement nag boo ko deful du ñu xam ku nekk loo mën. Mhm. maintenant nag élection yi ça va cher. pourquoi. Euh, code électoral dafa ne. Mm-hmm. pour chaque liste tu as l'obligation d'imprimer la totalité du fichier électoral plus la moitié. Mmh. Si tu as un fichier électoral de 10 000, euh, de 7 millions d'électeurs, donc ça veut dire que 7 millions plus 3 millions 500, 10 millions 500, bulletin bu ne dix millions cinq cent et ah, moo tax ma la quarante et un milliards voilà di la cher mm-hmm. te loolu noonu sant tu ne comptes pas les autres frais de effectivement tu ne les urnes mm-hmm. tu ne comptes les usurales matériel électoral euh, le paiement des per diem des gens qui doivent siéger dans les bureaux ça va coûter très cher ces élections donc loolu moom da ko na ko Sénégal na ko sénégalais xam voilà ñu gis euh, coalition Diomaye asafurla Pastef parce que coalition bi dafa inclure ci biir euh, Pastef muy demal boppam. ñenn ñi ne est-ce risque ñenn ñi ne non c'est le moment que aussi Pastef mu mun a natt boppam. peut-être am na lu fi jotoon a jaar. Mhm. peut-être daf leen servir de leçon pour que ñu bañ a duggaat ci lu ñu duggoon. mais li fi li ñu def nii xam nga en réalité la nature humaine est complexe là la euh, dañoo àndoon ci coalition dem assemblée nationale ba ñu demee. ñoom seeni xeex politique ak leur positionnement politique jural leen seen coalition tas léegi nag ñu ne bii yoon demewuñu ci coalition surtout parti la ñuy demee mais ba tey coalition laa ko tuddee man. Mm-hmm. parce que ah, mooy coalition Pastef. voilà tuddul coalition Pastef ñoom si liste bi Pastef la tudd. Mm-hmm. mais da ngay gis ni investir nañ ñoo xam ne bokkuñu seen parti. c'est des alliés des alliés da gis ni ñu ñu investirul sax nee nañ jàppale leen liste Pastef. da ngay gis ni am na ñoo xam ne investir ñu mais ñoom nee nañ liste bi la jàppale. comme le cas de Boubacar Camara. Boubacar je pense le cas de Mamboy Diao. je pense même le cas de Mimi Touré. Mm-hmm. parce que moom amul benn investi sur la liste mais mm-hmm. terewul nee na Pastef la jàppale. waaw je pense que ak ñeneen ak ñeneen. ak le nouveau maire bi nekkoon taxaw Sénégal. voilà moom aussi le le de Rufisque. oui waaw le maire de Rufisque moom nee na moom voilà et donc muy noonu. kon ba tey jàppal ni c'est une coalition mais dans tous les cas lu ñuy wax ni moom lañ ciy bañ amul dara lu lay won ni ëllëg loolu mënul am parce que un allié reste un allié. mën ngeen dem ba assemblée ngeen xuloo. effectivement n'est-ce pas. Mhm. mais bu ngeen xuloowee assemblée. qu'est-ce qui va se passer l'allié va juste dire je ne dans votre groupe parlementaire te assemblée nationale maye na at bu jot ñuy député yi dañoo war a inscrire sur les groupes. kon boo inscrirul ci groupe Pastef. mais tu deviens un député non inscrit donc tant que posé woo acte buy wane ni yow bokkatoo ci parti boobu noonu on peut pas t'exclure de l'assemblée donc man lu ñu jàpp ni mooy argument bu tax ñu kii noonu c'est un argument recevable mais pas très convaincant chez moi parce que allié yooyu nga dugal sa liste bu ëllëgee mën ngeen a xuloo te ba ngeen xuloowee la amoon ca coalition bële mooy amaat fii mm-hmm. mais en tout état de cause Pastef ne par par seul aux élections Pastef part avec ses alliés. Mhm. et maintenant loolu na mënoon deme maintenant on va voir qu'est-ce que ça va donner. ça va donner alors mm. su ma paree ci Pastef damay ñëw ci opposition bi. parce que gis nañ le cas de la VAR muy waa VAR par euh, coalition VAR. Mhm. am na ñu commencé di retirer wu déjà ci coalition. ban mooy coalition VAR. mooy bu ñoom bugaan. sàmm sa kàddu waa waaw ah, ok mooy VAR. ah ok waaw waaw waaw. donc mm-hmm. am na ñu commencé génn foofu. Mm-hmm. déjà au départ intercoalition lañ doon wax ñu jékki saay gis Amadou Ba génn. donc finalement est-ce que ñoom aussi euh, si si boobu noonu dina leen mën a may doole par rapport bon xam nga lan laa waxul sànq si liste yu bëri yi. Mm-hmm. moo di ni euh, lan la l'émiettement des de l'opposition. et toujours favorable dans une élection comme les législatives au parti au pouvoir liste yi nu mu gën a bëree mu gën a arrangé parti au pouvoir. <laughs> lu tax nga wax ko. parce que élection raw gàddu la. waaw loo raw gàddu la de moom. yow tey jii nii tey jii boo jiitu woon Dakar de deux voix yaay jël député Dakar yëpp. boo jiitoo tuuba de cinq voix yaay jël. député Touba yëpp waaw. donc mais maintenant lu si ëpp boo seetloo. kii jël premier boo dajalee ñii topp ci ginnaawam ñëpp ñoo koy raw en mhm. voix mhm. moo tax may la l'émiettement mhm. des de voix et toujours un avantage pour le parti au pouvoir kon ñoom dañu war a normalement bu ñu bëggoon. mais est-ce que de problème intérêt aussi dafay poser. mais c'est toujours comme ça c'est-à-dire que tu verras toujours des gens te dire askan wi laa fi nekkal et tout mais finalement seen intérêt particulier la ñu gën a jiital ko askan wi. parce que dégg nañ ñoom seen biir damante bi ñuy damante dañuy ko toog ne yow immunité parlementaire ngay wuti. kii ne ko uti sa loolu wuy ma xoolal gis nga loolu. dañ koy naxee sénégalais yi gis nga dañ def ndànk immunité parlementaire ne veut pas dire impunité. maa la ko amul kenn koo xam ne amul kenn koo xam ne di nga am immunité parlementaire ba kenn mënu laa topp amul kenn koo xam ne di nga am immunité ba kenn mënu laa topp loolu na ko ñépp xam képp ku am immunité bu dee am nga dossier bu la yóbbu wara yóbbu yoon ministre de la justice procureur général day bind ministre de la justice. Mmh. ministre de la justice bind président assemblée nationale. Mmh. ñu ne leen diwkat dañ koy toppee lii ak lii ak lii. te comme immunité la am dañoo bëgg nga teggi immunité bi pour ñu mën ko àtte dañuy woote réunion ñu lever immunité bi nga dem wuy ji kon kenn mënul rëcc fii. ok kenn mënul rëcc loolu na ko nit ñi xam képp ku yaakaar ni da ngay dem élection pour am immunité yaa ngi ndax sa bopp kon immunité terewul nit ñu topp ko. mais mais xam nga tey. Bachir peut am na ci ñoo xam ne ku la waxoon ne dinañ àndaat peut-être. politique ci cas dans le cadre waaw daf lay def cas. ba ndegam Mimi Touré tellement que. ndegam Mimi Touré moo mën a ànd ak waa Pastef. Mhm. ak lépp lu mu yàq Ousmane Sonko. Macky Sall mii jiiñoon Karim Wade ni dafa sàcc suñu 138 <laughs> milliards war a mën a ànd ak moom. wallaay affaire bi jaxasoo. voilà <laughs> c'est-à-dire que xam nga politique mooy li may wax toujours rek dañuy mbubboo as intérêt askan wi. Mhm. fekk c'est des intérêts particuliers. crypto personnels qui sont crypto personnels qui sont en avant. Mhm. jii boo mënee toog. ñu ne waa taxawu ñu ngi ànd ak waa kër Bougane nga xattaleku Barthélémy Dias lam fi waxante ak Bougane fii la ñu fekk ah. Barthélémy Dias fi waxante ak Bougane fii la fekk te tey ji ñëw mën a ànd nga jóge ko foofu noonu waa PDS ñii taxawoon ñu ne ñoom ah Macky Sall mooy seen problème ba ñu dem votel jomaa yi waa PDS googu tey. te PDS actuellement ñu bëri gite gite nañu. waa maa ngi ñëw foofu. Uh-huh. waa PDS googu tey ñoo ne ñoom Macky la ñu àndal te Macky boobu moo ne woon Karim moo sàcc suñu xaalis ba ñu tëj ko kaso ba ñu génnee ko kaso ba ñu exilé ko. affaire bi comme équation plusieurs économies. non <laughs> xam moo tax chaque jour ma naan si tu comprends le Sénégal e les Sénégalais c'est parce qu'on t'a mal expliqué parce que si on t'explique bien tu ne peux pas comprendre. <laughs> nga jóge ko foofu noonu nga ñëw cest nga dugg fépp noonu la mel maintenant nag c'est des hommes politiques c'est le c'est c'est du moment qui dicte la conduite du moment okay. donc loolu rek ngay comprendre mhm. ndaxte démb intérêt PDS ak Macky ba mu àndee dañoo def seen intérêt pour ñu repousser élection yi heureusement que y a conseil constitutionnel qui a dit non mhm. mais après loolu ba mu jàllee loo si gis waa PDS boobu defoon coalition ak Macky ñoo dem ne votel leen Diomaye tey jii waa PDS googu noonu ñoo ne ànd nañ ak Macky ñenne seen biir ànduñu ak Macky dem créer seen liste def coalition soppi ba mu am ay lettres yoo xam ne bind nañ ko ci pour ne leen waroo leen jël suñu couleur waroo leen jël suñu lii waroo leen jël suñu lële et c'est ça la politique maintenant nag ci biir loo nag mais est de survie aussi xam nga tous les partis politiques doivent survivre tous les partis politiques doivent suivre tey jii ana parti socialiste ànd nag Amadou Ba. ana AFP ànd nag Amadou Ba. waa AFP gisoo leen ñoom tam xawoon nañ mer tuuti ci. Euh, investiture yi parce que ku mel ni Moustapha Niasse ni mu mel ak Macky Sall ñu xëy gis ko mu ànd ak Amadou Ba. ah ben ñoom ñoo xam lu si xew xam nga tamit nag mooy lu ma wax rek mais en tout état de cause. et puis on dirait que Amadou Ba il n'a pas encore digéré ce qui s'est passé lors des ah, man bu ma doon moom je ne vais jeune ne peux pas être le candidat que tout le monde a combattu et après nga ñëw nga bëgg a toogaat mais maintenant en tout état de cause tey jii élection bi tamit nañu éviter lan la yemale ko ci quatre coalitions yooyu nga ma tuddal parce que Ba coalition la Macky coalition la Pastef coalition la ñoom Bougane coalition la mais yaa ma wax 41 la. Mhm. mais ñoo ñoo ci gën a fës voilà mais ñoo ci gën a fës d' accord mais dans les bu leen fàtte Thierno Alassane Sall am na listam mais compte tenu de Thierno Alassane Sall taxawaayam assemblée man jàpp naa ne il mérite de retourner à l' assemblée parce député yi nga xam ne quand même ci législature bii ñu génn nawoon nañ seen liggéey. Mhm. lu leen delloo assemblée war na mu nekk. Mhm. ku mel ni Aba mbay def na fa liggéey boo xam ne ma rafetlu naa ko war na mën dellu assemblée nationale. Mm-hmm. xaw ma ndax mu ngi ci liste xaw ma nekkul ci liste. Mm-hmm. maintenant nekkoon tamit waroon na mën dellu assemblée. mais est-ce que Moussa investir na. moo tax ma ne waroon na mën dellu assemblée. est moo gën a jur frustration parce que instant bi APR dafa mel. ñàkkul mais bokk gis la nekkoon. APR fi mu ne nii mun wax ni tas na. jaar nañu. voilà léegi ñeneen ñi jaar na la ñu ci des ne dañoo mer. effectivement mais maintenant tey jii ku mel ni Thierno Alassane Sall ak listam war na mun dellu tey jii am na ay euh, Racine si gis naa ko yor na list ak kii euh, DG Koudou bi. waaw ma maa ngi ñëw maa ngi ñëw Racine si gis naa ko yor na list mais Racine si c'est la voix du patronat. kon ñoom tey jii war nañu mun dem assemblée nationale maintenant da ngay gis ni y' a beaucoup d' anciens de Macky yu yore seen i liste. looloo gën a garaaw. Maguette Sène am na listam Abdourahmane Ndiaye bu nekkoon SAPCO am na listam mhm. Cheikh Issa Sall DG CDC euh, am na liste. mais mais problème bi mooy Bachir. Mhm. affaire mënuñu mhm. fi bàyyi jeunesse bi reconduire ay nit yoo xam ne. waaw loolu moom loolu moom frustration loolu moom loolu moom loolu moom la la man dafa am loo xam ne dama ko yaakaaroon ci élection yi. Hmm. mooy un renouvellement générationnel. mais malheureusement on a vu que. dans la liste bi nga xam ne Macky moo ko jiite comme dans la liste bi nga xam ne Amadou Ba moo ko jiite les premières places on été réservées à des personnes qui ont déjà fait leur carrière politique. effectivement. et c'est ça malheureux. Ouais. maintenant la seule liste boo xam ne man en terme de rajeunissement. Mm-hmm. c'est mon mhm. mooy la liste bu ñoom buggaan nekk. parce que boo seetloo Barthélémy Diaz moo jiite liste bi Anta Babacar moo ci topp et ainsi de suite ainsi de suite ñoom ñëpp weesuwu ci cinquante ans c'est une liste relativement jeune sur les dix premières places apparemment di nga fa fekk Pape Pape Djibril Fall. mais liste non wax ma loolu mais c'est-à-dire que. Okay. je commence par cette liste là. configuration, configuration boobu noonu. j'apprécie parce que man loolu laa doon xaar waa Pastef def nañ loolu ils ont mis des jeunes et c'est très bien. Mhm. et je salue autre chose dans Pastef ils ont mis des personnes handicapées. ok waaw la dame là non et ça j'ai beaucoup apprécié parce que moi je dis souvent que Sénégal on a une loi qu'on n'a pas très bien exploitée dafa am bu tudd loi bu ñu tudd loi d'orientation sociale. sociale loi boobu dafa ne chaque fois qu'il y a des recrutements. il faut privilégier les personnes à mobilité réduite les personnes vivant avec un handicap et cetera. donc loi boobu day wax sax ñu jox leen dix pour cent des postes de recrutement. ok donc mais aujourd'hui loo xam ne recrutement la mais élection aussi war na mën nekk. Mhm. donc mais aujourd'hui j'ai vu que on a parlé d'une personne handicapée on j'ai vu qu'on a parlé d'une personne malvoyante boo xam ne dañ ko dañ ko war a investir mais après j'apprécie parce que Sénégal sénégalu lu ñëpp la. ñi mën dox ak ñi mënul dox ñi mën wax ak ñi mënul wax et cetera. donc ci côté boobu noonu effectivement au-delà de l'investissement des jeunes ndaxte tey jii nii moi qui te parle la tête de liste départementale à Pikine sama jarbaat la bu Pastef. sama jarbaat la kon. Mhm. donc xam naa ni ay jeune la ñu investir mais terewul nag on apprécie fortement. lu ñu def noonu par rapport à ces personnes avec vivant avec des handicaps mais bu jàllee liste passé boobu noonu sur les autres listes lu ma gis mais la liste de euh, liste VAR boobu ngay wax quand même c'est c'est des profils quand même jeunes Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany euh, Ngone boobu nag Anta ci ëpp sens Ngone Diop et parce que Anta jigéen la moom kese moo ci jigéen waaw ak lu mun di xew moom waaw waaw jàllam day leer jàllam day leer donc et tout donc voilà j'apprécie effectivement que ces gens-là puissent se retrouver à l'Assemblée comme également des profils parce que maa ngi lay wax patronat gis naa Racine si yor na mhm. gis naa aussi tamit ku nga xam ne moom également c'est un homme du patronat il a sa liste maintenant. d'accord en espérant que ñoom ñëpp dinañ dem assemblée. d'accord Bachir fi ñu jeexalee très rapidement. muy hmm. euh, euh, le cas. Euh, reddition des comptes yi. donc gisoon nañu ki nga xam ne moom mooy jéegi jot nañu ko libéré et autres. Euh, ñu bëri jàpp ne cadre reddition des comptes bi euh, emprisonnement mun na nekk dernier des choses s'il y possibilité de rembourser. xam nga euh, sunu sunu ay loi mm-hmm. quand on parle de détournement de deniers publics euh, dañ la ne dès que le détournement de deniers publics dépasse un million de francs mm -hmm. le mandat de dépôt devient obligatoire, obligatoire. sauf dañ ci teg sauf si la personne accusée dépose une caution okay. équivalente aux sommes présumées détournées mm-hmm. moo tax it ku ñuy toppee ni da ngaa luubal alalu réew mi ak ku mu mënti doon diggante bañ lay woo di la yóbbu police di la enquête ba war la présenter procureur boo indee caution doo dugg kaso. ok c'est ce qu'a fait Diogui Diop. Mhm. maintenant cautionner ne veut pas dire j'ai volé cautionner veut dire simplement j'évite la prison bu boobaa da ngay am contrôle judiciaire nga dem toog sa kër et cautionner ne veut pas dire rembourser aussi. parce que remboursement ak cautionnement c'est différent cautionner n'est pas remboursé cautionner n'est pas volé cautionner veut simplement dire j'évite la prison waaw bu boo éviter prison kay sûrement di nga teg solution mais léegi nag ah déedéet boo éviter prison enquête bi day wéyal lu liggéeyam bu ñu demee ba àtte bu ñu demee ba àtte ne yaa jël donc la nga cautionné woon ñàkk nga ko bu foobaa bu ñu lay teg daan ñu teg la daan mais bu ñu demee ne jëloo bu boobaa la nga cautionné woon dañ la koy delloo. mais 28 millions yi nga xamante ni cautionné na ko nag. oui mais loolu laa la wax. waaw léegi man soo benn question la mooy pourquoi droit. Ah, parce que tey jii je donne l'exemple de Khalifa Sall. dañ ko doon toppee un milliard huit sur l'affaire de de la ville de Dakar. Mhm. ba ñuy yóbbu Khalifa dafa ne woon du ma cautionné maa bañ. parce que nee na cautionné veut dire maa def te defuma. Ah, waaw loolu lay nduru nag. voilà mais maintenant fan la mujj. xalifa dafa dugg kaso dem ba ci biir ñu cotiser indil ko caution kon la mu bañoon nangu na ko ça veut que tey jii nii boo defee konte ne États-Unis la nit dina taxaw rey nit sax fay caution bañ a dugg kaso parce que la caution n'est rien d'autre que dans le cadre d'une procédure de détournement de deniers publics la possibilité d'éviter la prison tu évites la prison parce que tey jii jéegi bu cautionné wul woon mu ngi tëdd ci kaso bi mun na fa tëdd 6 mois 7 mois pour ñu àtte ne defoo dara mais bu fekkente ne moom am na wala ay mbokkam am na lu ñu ko cautionné ba du dugg kaso ça ne veut pas dire moo sàcc de. Mm-hmm. il faut éviter de faire ce raccourci facile cautionner ne veut pas dire voler cautionner ne veut pas dire rembourser maintenant nag bu ñu demee nag ba àttee am ba mu leer ñu ne yaa def bu boobaa nag lañ koy teg ay daan bu dee defoo nag dañ koy delloo xaalisam. kon nag képp koo xam ne kii tey jii nii ñu ngi lay toppee alal joo xam ne nee nañ yaa ko jël bu dee bëriwul mais bu fekkente ne ay milliards la xëy na amoo ko mais lu mu ci mënti doon la caution fait partie des procédure prévues par le code pénal et le code de procédure pénale pour éviter la prison. d'accord Bachir en tout cas amoon nañu un réel plaisir dalal la comme toujours euh, ba am na point bu ma bëggoon aussi allez-y rajouter hmm. muy l'affaire Azer hmm. mais euh, dafa mel ni mbir mi ñaari entreprise la concerné par rapport ak la situation d'après suñu ay investigation oui que bu fekkente ni si c'est le cas loolu xëy na peut-être bu ñu revoir les contrats war nañ mën a xool nu ñu koy gérer très rapidement parce qu'on nous parle de scandale te et au finish d'après suñu investissement euh, suñuy investigation du moins mm-hmm. euh, DG bi bu muy ñëw fekk na fi contrat yooyu ba pare mm-hmm. donc moom peut-être ñu ngi ko ci mêlé mais mbir la boo xam ne aussi bu fekkente ni avant muy ñëw la la fa fekk loolu dina compliqué si côté oh lan la DG bi bu signé woon contrat bi ak contrat bi mu fekk ko fi depuis cinq ans c'est pareil là n'est problème gis nga dans le dossier Azer il nous faut éviter l'accessoire et parler du principal parce que maa ngi lay wax sànq naan le ministre Matay bi la mu def noonu c'est pour nous amener dans l'accessoire. waaw ah, lu tax ngeen ni ministre maa nga tuddee ko ministre maa mais nan la ñuy wax ñu ne ay milliards nit tuumal nañ ko mu ne boo ko defee yaa tey.

ñu ne yaa jël. Mhm. man nit toog na télé. si page Facebook am et je vais le citer mhm. mu bind mu ne Bachir Fofana Amadou Ba da koy jox weer bu ne deux mille deux millions cinq cent. Mhm. xaw ma deux millions. te yow encaissé woo loolu. xaaral xam nga la laa leen bindal. dama dem bind sama page. ma ne dem leen ngeen ne Amadou Ba. ka mu doon yónni mu may indil deux millions musul egg si. <laughs> ka mu doon yónni mu may indil 2 millions musul egg si te kooku bu ko lekkee ala riba saako dëtt. Oh, Bachir. est-ce que dégg nga baax li ma la wax. dégg kon man duma ma fi nekk naan noo du dëgg xaaral non non non et cetera c'est lui d'amener des preuves c'est faux et koy wax mu jeex. ok kon nag fii nii dama ne. Mhm. on ne peut pas citer quelqu'un nous sommes 18 millions de Sénégalais. Mhm. tudduñu Lalla Wele tudduñu Bachir Fofana. que mhm. ñu tudd kooku noonu nit taxaw naan ko yaa tey. loolu du waxu kilifa maa tey ku daanu ci sareet moo koy wax. ah yow lu baat wax moom mooy mais maa tey du da ku daanu ci sareet moo koy wax. d'accord lu ñuy wax mag burus mooy wax maa tey du loolu la ñuy jàngal ci wolof. <laughs> muy benn. <laughs> loolu moo tax may la loolu c'est l'accessoire. ok maintenant le principal. tu m'as dit que c'est deux privés oui mais c'est deux privés pour de l'argent public. ok kon ça devient de l'argent public. Mm. ça devient une affaire publique. Mm-hmm. kan moo signé contrat bi fii lañ ko fekk c'est pas là le problème mm -hmm. ce qu'il a un problème moo di ni on a signé un contrat avec une entreprise sénégalaise xaw ma espagnole après avoir dépossédé une entreprise sénégalaise loolu mooy benn maintenant bu boobaa tu te dis ñii taxawoon ne ñoom c'est des nationalistes ils font la promotion du du privé sénégalais. doon kaas naan sunu entreprise yii nga xam ne tey jii nii dañuy jël suñuy marché di ko jox tubaab yi. ñoom ñoo jël marché jox ko ab tubaab loolu nga njëkk a benn. ñaar kii nga xam ne moom dañ ko jox kon dañoo nangu contrat bi ci moom am na sañ-sañ dem clamer. Mhm. mu dem clamer fa mu ko war a clamer mooy fan mooy ARCOP autorité de régulation des marchés publics man ak yàlla bu ñu xulawee tribunal lañ jëm. Mhm. problème bu amee ci marché ARCOP lañ jëm. waa ji bind ARCOP. ARCOP bind ASER ne leen jox leen ñu kayit yi ñu saytu xool lu ci nekk. waa Azer bañ mais lan la loolu mooy scandale. ok dañoo bañ. mais dañ ko bind. ok waa waa ARCOP quand ils rendu leur décision dañoo ne dañoo bind Azer pour laaj ko ay kayit ci marché bi Azer joxuñu ñu ko kon nag tey jii nii mépris bi nga xam ne Ousmane Sonko da ko wane woon vis-à-vis de nos institutions et de nos organes de justice. moom la waaw directeur ASER bi wane. le directeur de l'ASER a montré du mépris à l'endroit de de de l'ARCOP loolay benn. ok loolu beneen niveau de scandale la ñaareel bi ñu dégg ñu ne am na avance de démarrage de 37 milliards mais lan la poto taxawul làmp lamp tàkkul kon léegi nag. ñu waaw on pose la question fu xaalis bi dugg. waaw loolu moom information judiciaire dina. voilà ñu fu xaalis bi dugg. maintenant ñu gis ni banque bii nga xam ne moom mooy banque bi doon financé kii bi la banque de Santander lan la wax mu ne on a constaté que 5 milliards équivalent de 5 milliards génn ñu ne dañ ko fay ay commission mais ñu ne kan moo fay commission bi. mais c'est des question normales et légitimes que les gens doivent se poser et sur lesquelles ñii woote jub jubal ak jubanti waruñu cee noppi te waruñu am beneen tontu lu lu dul ay maatay maintenant lu may déplorer man te di ko déplorer mooy on a mis en place un parquet financier te lii c'est un scandale financier sur lequel le parquet financier se tait et c'est pas normal dans un pays comme ça. mais est-ce bi daf si noppi. mais ah, bu information judiciaire amoon doo ko dégg. d'un moment à l'autre parquet bi mun na agir. mais depuis un mois nekkul ci dossier mais mais dossier yi dafa bari basé. mais lan la xam nga lii moomee boole yow. c'est-à-dire vouloir chercher des justificatifs à des gens à ou des évidences. non mais chercher ma justificatif dama ne est que du dama poser question. mais c'est-à-dire que yi ñoo bari. mais yan dossiers yi ñoo bari cest ñu ñu jàpp ñëpp ay opposants lañ tu constateras c'est un constat. ah mais yéen a wax oui reddition des comptes. mais pas réglement de compte. ah da nga gis ne mais si ça ressemble à du règlement de compte. <laughs> non nous nous voulons une des comptes nous l'avons demandé nous l'avons souhaité. Mm -hmm. mais nous ne voulons pas de règlement de compte. loolu mooy loolu mooy li ngay wax noonu bu boobaa nag nga nga xuus dugg ci nga gis nga dem ba aéroport nga gis nit war tukki ñu ne ko doo tukki te amul benn kii topp ñu la ci dara si lan loolu. si benn jaay doole boo xam ne yow. démb da nga mais mais Bachir foofu noonu est-ce que aussi information boobu noonu euh, am avéré na parce que ñi ko waxoon aussi après tukki na. déet Ablaye Sow def na ko tukki na. waaw Madiambal Madiambal Madiambal Diagne dem na tukki na. waaw mais Idrissa Diabira dem na ñu téye ko. mais lu tax ñu téye ko. ñu ne ko on a reçu instruction que ancienne autorité bu ñu voyagé. loolu lañ ko wax. carrément Cheikh Issa Sall dafa dem Mbu dafa dem Nimzat. ñëw ba barrage de jama frontière Diama ñu ne ko doo jàll fa mu taxaw di julli la ko Alassane Samba Diop woon ne ko dégg naa ni on t'interdit de voyager alors que moom yëgul sax mu ngi toog di xaar ñu def ay vérification dégg nga fi Manar Sall wax. Mhm. Hmm? mais que dégg nga fi laaj Diop wax waaw mais seen dossier waaw mais seen dossier est-ce que woo nañ leen enquête leen. mais lan la yow amoo dossier kenn woowu la kenn enquête la dañ la war a tere nga tukki nga nga nga nangu loolu. pour nga toog xaar. mais pour lan ngay toog xaar c'est-à-dire que yow nit ki da nga koy toppee liir mbir nga xam ne yaa nga koy toppee. Mhm. toppee woo ko mbir il est libre de ses mouvements ba keroog nga koy soxla. mais munoo ne toogal xaar ba ma la soxla non te amul kayit bu lay wax ni toogal xaar donc loolu c'est du jaay doole que les gens doivent dénoncer maintenant boo seetloo loolu noonu yëpp. c'est des opposants moo tax may la attention nous voulons euh, d'une d'une mais attention en faire un règlement de d'accord voilà. merci beaucoup Bachir. merci amoon naa un réel plaisir daal. man maa ko am. moo nga tàggatoo c'est dommage que chaque fois que bu ñu commencé fu muy neexee nga koy daggee mais garaawul. ah mais temps bi <laughs> <laughs> xuloo wuñu. non non non maa ngi yow mosuñoo xuloo dañ doon werante rek mais xuloo wuñu. <laughs> waaw mais waaw amoon na réel plaisir ñëw fii partager ak yow euh, euh, émission bi face à di joxe dëgg daje beneen yoon incha allah. ci Sénégal set et tout euh, ñaanal sénégalais jàmm. Mm-hmm. waaw di espérer nag. Euh, projet bi nag lépp lu ñu ci joxe comme ay euh, suggestion ñun ñu def ko ñeneen def ko que autorité dinañ ci tenir en compte pour ko mu doon document bu sénégalais yëpp approprié approprié wu pour mën ñu mën ko dëral ndaxte comme mm. la réussite du Sénégal ñu ngi ñaan mu am réussite incha allah incha allah mm. c'est important merci beaucoup Bachir amoon nañu réel plaisir dalal ko face à moo mm-hmm. doon dalal euh, Bachir foofu na ni lay demee saa nekk dinañu andi mm-hmm. li gën a fës ci wàllu actualité bi ñu faram fàcce ko ba mu a leer aussi laaj leen seen xalaat ak seen gis-gis ci li nga xam ne moom mooy yooyu le mbir donc di jaajëfal tuuti ah la grande réalisatrice boobu nga xam ne su image yi normale su baaxee émission yi neex bu son bi naayisee donc lépp moom la di ko hmm. jaajëfal bu baax a baax <laughs> yàlla na ko yàlla may wér kër gi nag daa bëri ay cadreur yoo xam ne dañuy sabote mais garaaw jéy maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu sama maam sama grand-père muy euh, grand-père Bamar maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàcc waaye di am fierté ah di la ñaanal yàlla may la wér ak gudd fan ku baax nga ku wekk sa njaboot nga yàlla na la yàlla defal jàmm donc tey moom dédicace bi yow laa koy jagaleel di la jaajëfal bu baax a baax et merci beaucoup encore une fois d'ici là portez bu bien à très bientôt jërë ngeen jëf